yadrusuuna danañu jàng amradal ashjaari tawati garab ya yu kaafixoona danañu bërenteeg alxasharaati insectes yi wala nga ne gunóor yi dañuy jéem a xam xeeti garab yi ak tawat yi nga xam moo leen mën a yàqal ñoom garab yi jéem a xam itam gunóor yi nga xam ne ñooy yàq mbay mi ak nu ñu bëreeg ñoom ba duñu yàq thaqafatul muhandisi culture ingénieur ingénieur lu xam-xamam war a toll fu ñu koy natt yadduxulu dana tàbbi taalibul handasati étudiant bu handasa madrasatal handasati école handasa al handasa ci boppam jox la ci takk-takk bu fekkee dafa dellu ci mbirum tabax wala yooyu dañ koy wax architecture nga xam ne al muhandisu al mi'mariyu moom la ñuy wax architecte baatub handasa daañu ko wax jublu ci rek technique daañu ko wax ingénierie ingénierie nga xam ne mooy xam-xamu ingénieur ak liggéeyam ak man-manam bu ñu nee nag ilmul handasati xam-xamu handasa mu bokk ci mathématique moom géométrie lañ ko wax ilmul handasati mooy géométrie ka nga xam ne moo ko xam nag moom la ñuy wax géomètre yajibu dana war an yàkkoona mu nekk xaamilan di aji yore shahaadatal baccalauréat diplôme baccalauréat bi xismay xaa ci ñaari xaajam ña te faraxu riyaadiyaat bàngaasu mathématique lay doon yadrusu dana jàng a rasma dessin wa usoolal binaa yi ak cosaani tabax wa tafasilal muharrikaati ak détails yi xeeti moteur yi wal quwaa ak force ya almaa iyata yi ko jóg ndox wal buxaariyata ak yey ko jóg cóola muy vapeur wal kahraba iyata ak yey ko jóg courant yanaalu dana am nag kon shahaadatal handasati diplôme handasa ingénieur nee na faaw mu dem école ba ñuy jàngalee handasa ingénieur yi faaw mu dem ci école ba ñuy jàngalee loolu te faaw mu amee diplôme bac ci yaari wàll yépp aju ci wàlluk mathématique faaw itam mu jàng li ñuy wax mbirum dessin ak lu aju ci cosaani tabax ak lépp lu ci aju dana jàng itam xeeti moteur yi ni ñu baree ak ni ñu baree ay détails yi am force bu ñu mën a jëfandikoo ni ki ndox xam nga dafa am force doole boo mën a jëfandikoo muy doxal machine lu mel ne cóola vapeur ak lu mel ne courant yi am doole mën a doxal machine yépp day xam seen doole na mu demee ba xam nañ leen di jëfandikoo su defee nii daal ñu may ko diplôme handasa ashor al muhandisu ingénieur daroori yun nécessaire la jiddan lool innahu naka moom mufidun aji jariñ la lil bilaadi ñeel dëkk yi yu xaafidu dana sàmmonte xalaa arwaaxi naasi ci róoyu nit ñi yu saxilu dana yombal amaalahum seeni liggéey ataman naa danaa mébét an akkoona ma nekk muhandisan aliyan di ingénieur mécanicien ingénieur bu man mécanique buñ ne muhandisan aliyan mooy ingénieur bu mécanicien maanaam bu xam mécanique bu ñu nee handasatun mikanikiyatun wala handasatun aliyatun su boobaa danga koy firee technique rek wala génie mécanique su ko defee ka xam-xam xam boobu nag moom la ñu wax al muhandisu al miikaanikiyu wala al muhandisu al aliyu bu ñu nee handasatul mudun mudun bi firi ay wiil jamhu madina moom la ñuy wax urbanisme maanaam xam ni nga xam ne moom la ñuy plané dëkk yi plan yu jekk yu aw yoon bu ñu nee handasatu riyi riyi bi firi ak màndal ni ki màndal suuf si ba mën koo bay moom la ñuy wax hydraulique hydraulique wala informatique lu ci nekk daañu ko ko wax suñu nee handasatun bahriyatun bi ko jug géej ki wax génie maritime maanaam xarala gu aju ci ak xam-xam bu aju ci wàllu géej gi baatu handasa moom ni nga ko xamee rek dafa yaatu lool fu ñu koy jëfandikoo ndax xam-xamu xarala bu yàlla ci ak wàll te wàll yi bari am na sax handasatun askariyatun muy génie bu militaire maanaam ingénierie bu aju ci xam-xamu militaire aju ci wàllu guerre ba ci jaww ji sax daañu wax handasatun farariyatun wala handasatun fadaiyatun jubli ci géométrie bu l'espace fa toll ci at taw siyan fi utlati fasli rabi ci feetuk jamonoy loolu bi xum naa taxawoon nanu bi rixlatin ci ab tournée madrasiyatin bi ko jug école ila qasri bayti diini jëm ci paleb bayti diin ak taarix yi bi ko jug histoire lil ibtilaahi ngir yër xalaa tuxfati fannil binaa yi ci objet objet bu fànnuk tabax wala nga ne objet bu architecture fi lubnaana ci lubnaan alxadiisi bi aji moderne ban tolloo ci faslu rabi danoo defoon ab tournée boo xam ne école bi ñoo dajaloo ne dañuy seeti palais bi ñuy wax baytu diin muy bu yàgg ci histoire ndax bëgg a xàmmiku waalimaa ni ñu xaralaa ci mbirum tabax nam feeñe foofu bu demee min waa école bi seet ko xamiku ko wa baada safar yi saaxatayni gannaaw tukkib ñaari waxtu fi sayaarati ci oto wasal naa àgg nanu ilaa saaxati qasri bayti diini jëm ci ëttub paleb bayti diin alkabirati bi ajrëy allati bi nga xam ne shahidat teewe woon na a'zama alhaabil furusiyati gën jaaro yi foy man nga war wala man toppatoo fas alhaabil furusiya moom la ñuy wax carrousel ñu koy firee noonu rek xeetu ko noonu lañ koy wax waxalaa jaanibiha te nekk na ci wetam nga sharxi gi ko ju penku xorofun ay sàmbar xadidat ñuy aji bari li xarasil amiri ñeel garde yi buur ba wala muwazzafina ak fonctionnaire yi wala employé gannaaw ban amee ci yoon yi lu tolloog ñaari waxtu lan àgg ci ëttu pale boobule muy ëtt bu réy réy boo xam ne jamono yi toppatoo ngawar ak toppatoo fas xewee ëtt boobu daañu fa def lu mel noonu wet ga ca penku nag am na ay néeg yu bare bare yoo xam ne garde yi buur bi ak fonctionnaire yi fa daan liggéey ñoo fa daan dëkk su ma daxal naa topp lu dugg alxasra pale ba alfaxma bay ajrëy allazi ba nga xam ne kuti ba bindeef na fawqa madxalihi ci kaw buntam ba baytaani ñaari bayit mina shi'ri ci way madxal ngir tàgg lil amiri ñeel buur bi wa tawajjax naa te nu jublu minhu bàyyi ko ci moom ila saaxatil qasri jëm ci ëttub pale ba ak daaxiliyati bay ko jóg biir xay su buniya fa nga xam ne fa lañu tabax xawdun bassin wala mbalka waasihun buy aji yaatu tafooru ba dana fuur min hu ci moom almiyaaxu ndox ya bi shiddat ànd ak tar mooy ànd ak doole gannaaw bi lan dugg ci pale bërëw bi nga xamee ne bu àggee ci bunt bi gis ñu bind fa yaari bay joo xam ne ñu doon tagg buur ba fa nekkoon lu jàll nag ci ëttu pale bi nga xam ne mooy ëtt ba ca biir xam ne foofu dañ faa tabax mbalka mooy bassin bu yaatoo yaatu boo xam ne ndox ya fa nekk dañuy baawaan ànd ak doole su ma doxal naa topp lu dugg xaaxatal istiqbaali salon réception ba ak aniqata bay aji rafet daata saqfi bay borom plafond ba albadihi bay aji yéemu allësi ba nga xam ne yax wii dana làq mooy dana amee ashkaalan ay forme xanda siyatan yi ko jóg siwomètre raayixatan yu aji tiitle taar mus daanatan tey aji rafete bi muqoosi ci ay peinture wala ay dessin al muxtalifatil alwaan yi aji wuute ay couleur gannaaw ba lan jàll dugg ci sama bi nga xam ne fa leen daan defee réception teeru gan ñi muy salon bu rafet rafet xadd ba ko tiim mooy plafond bi dañ faa def ay peinture yu rafet rafet yu wuute ay couleur ak ay forme yu yéeme yéeme yu rafet rafet ko fii sadril xaaxati nekk na ci njëlbeenu salon boobu surfatun ab balcon mortafihatun bi aj yëkkatiku kaanat ba mu nekkoon na tu xassasu dee fi ko jagleel li julloo ci amir yi ñeel toogu buur ba bay dugg rek noonu fi saasa ci njëlbeenu salon boobu fi nga njëkk a jot am na balcon bu yëkkatikoo yëkkatiku boo xam ne ñu ko jagleeloon buur bi moo fa daan toog min haadihi alqaaxati bàyyi ko ci bile salon tawajjah naa jublu nanu ila qaaxatil istiqbaali jëm ci salon réception ba ashita yet bi ko jóg faslu shita fa shahad naa te nu jàkkaarloog jamaala nuqoo shiha rafetaayu ay dessin wala ay pentiram naqshi wu ñu wax boyaade ci wolof wala njam jublu ci ay rafet rafet wa diqata zaxarafatiha ak xereñu ak décoreem wa tanasuqa alwaani rusoomiha ak dëpponte couleur yi ay dessin tanasuq ak dëpponte mooy déggoo mën a ànd mën nga ne ak déggoonteeg couleur yi ay dessin dañ bàyyi ko ci salon bee nga dégg léegi dañoo jàll ci salon boo xam ne moom itam bu réception la waaye dañ ko jagleeloon faslu chita moom itam da ngay gis ñu peinture ko peinture bu rafet rafet def ci ay décoration yoo xam ne yu xereñ la couleur dessin yi itam déggoo lool su ma tawajjax naa topp nu jublu ila xurfatil amiri jëm ci chambaru buur ba allati chambar ba nga xam ne istaqbala teer woon na fiihaa ca moom lamartine Lamartine ash-shahira tama waykat ba al faransiya bi ko ju France al mawhuba tani ko ñu may may gu yéeme ci way wantaqal naa te nu toxu baax de zalika ci gannaaw loolee ila mahkamatil amiri jëm ci tribunalu buur bi xay sukaana fa mu nekkoon yestamihu di déglu ila shakawa naasi jëm ci njàmbati nit ñi wa yaxkumu te muy àtte baynahum seen diggante bil adli ci maandoo ban bàyyi ko ci salon bu réception boobule mooy boobu ñu jógee faslu chita danoo jàll ci néeg bi nga xam ne mooy néeg buur bi ci boppam nga xam ne foofee teer woon na fa poète France boobu nga xam ne ku mënoon a woy la yàlla may ko ci woy koy wax Lamartine buur bi teer woon na ko ci néeg boobu lu dem xool néeg booba gannaaw ba nag mu jàll xool àttewukaay ba nga xam ne mooy tribunal ba fala daan dégloo ñiy jàmbat ak àtte diggante nit ñi wa min ha bàyyi ko ca moom journal lanu visité xurafat taxaami saali ñam wa mooy saali ñu toog di lekk wal xarimi ak néegi soxnaam alxarim bari nay prix waaye daañ ko wax jublu ci soxna muy jabaram wa xayraha ak yudul ñoom tuma nasal naa topp nu wàcc xamaamaatil amiri sangukaay buur ba ñu koy wax ay piscine wala ay salle de bain ashahira tey aji siiw allati ya nga xam ne tu allifu danañu composé binaayatan bâtiment xaasatan buy spécial wallati tey sangukaay ya nga xam ne xawat ëmb nañu al ajraana bassin ya wala mbalka ya alwaasixata ya di aji yaatu wal maxaatisa ak sëmbukaay ya alxamiqata ya aji xóot wallati tey ya nga xam ne tuxattiha dana leen muur xubabun ay xubba yadd xulu yooyu dana tàbbee an nuuru leer ga min xaa jaare ca ñoom banu nemmi ko tribunal boobu danoo jàll nemmiku saal yi nga xam ne ca lañu daan lekke nemmiku it néeg yi nga xam ne soxnaam ak njabootam ñoo fa dëkkoon ak yeneen yeneen i nekk nu jàll nag nemmiku sangukaay yi nga xam ne ay sangukaay yu siiwa siiw la yoo xam ne daa am bâtiment spécial bu ñu leen féetale ñu am itam ay bassin yu yaato yaatu ak ay sëmbukaay yu xóot a xóot ba noppi nag am ay xubba yu leen tiim yoo xam xubba yooyu ñooy tax boo nekkee ci biir du lëndëm day leer ndax xubba yi ci la leer gi jaare di jàll ca biir wa min al xamaamaati bàyyi ko nag ci piscine yooyee tawajjahanaa lan dëgmal ilal xadiqati jëm ci jardin ba aljamilati bi aji rafet al mutillati bi aji tiim ala waadi bayti diini ci xuru bayti diin alxamiqi alxamiqi way aji xóot arraa'iil jamaali way aji tiitle ab taar maanaam ba rafet lool lool ba rafetaay ba day mën na lay tiital walam nan sa fàttewunu qabla muwaadaratina ci njëkk sunu bàyyikook alxadiqata chardin ba an nazoora nu wisite qabral amili bàmmeelu buur ba aljalili buur bi aji màgg wa natlubu te nuy sàkku lëfooñeel ko arrahmata yërmande ba nu nemmi ko sangukaay yooye ba noppi nag danoo dem xooli jardin bu rafet ba nga xam ne mu nga tiim xuru bayti diin mu xóot te rafet lool lool laata nuy bàyyikoo nag ci jardin boobu te fekk ne foofa lañ suul buur bi danoo dem nag siyaare bàmmeelam ñaanal ko yàlla mu dolli ko yërmande du door a bàyyi ko ci charne ba nag wàññiku ñibbi albaayihoona way jaay ña almutajawwiloona ña di way wëndeelu mooy marchand ambulant yi mooy ñi yore lu ñuy jaay di wëreeloo moom asbaabu wujoodil baayihiina sababi amuk way jaay ñi almutajawwiliina ña di way wëndeelu mooy yii lu tax am ñoo xam ne dañuy jaay rek di wëreelu tooguñ ci benn béréb loolu lay bëgg wax lu ko waral taxtaaju dana aajowoo ak tijaaratu commerce ila rasi maalin jëm ci capital yu defahu def na fay xismun ab xaaj min hu ci capital boobu badala ijaarin muy njëgub luye lil maxaasin ñeel ay magasin wal aaxaru ba ca des daañu ko faye famana bidaaxati muy njëgug marchandise te mina naas yi am na ci nit ñi man koo xam ne laayam liku du moom mooy du am rek daraxima ay dërëm kaafiyatan yi aji doy li fatxil maxaasini ñeel ubbi ay magasin kon nag yattaxisoona danañu jàpp rek xarabaatin ay puus puus sahiratan yu ndaw maxaasi na ñu di ay magasin lahum ñeel leen yaa aridoona danañu wane aleha ci kaw puus puus yooyu bidaa xatahum seen marchandise mu ne commerce moom de aajoo nga am capital boo xam ne lenn la da nga ko jëmale ci fay magasin ba nga bëgg a jaaye xaal bi ci des nag nga jëmale ko jënd marchandise teg ca magasin ba ci jaayukaay boobee mu ne loolu nag bu nit ñëpp ñoo mën a am capital bu mën a wut place wut marchandise loolu moo tax ñenn ñi di wut ay pousse-pousse ci ndaw yoo xam ne mooy wecci seeni magasin mooy ci la ñu def seeni njaay di ko pousse di jaay di ca wane seeni njaay yulaaxiqu dana di jéem a dab jalaa wisatul bala diyati ndawi maire bi al jill al jillawzu mooy mufrad mi daañu ko wax planton daañu ko wax agent de police agent bu police daañu ko wax daañu ko wax planton al baihina way jaay ña al mutajawilina ña deey wondeelu yatlubuuna nañu sàkku min hu ci ñoom ijaazatil bayhi autorisation yi jaay mu ne ndawi maire bi daañu sonal ñiy jaay di wëreelu ndax dañ leen di jéem a nemmeeku bu leen gisee di leen laaj seeni autorisation yañ am ba tax ñu sañ a jaay noonu te lu ci ëpp boo demee yoruñu woon autorisation yooyu baadul baayihina lenn ci way jaay ñi al mutajawwilina ñi di way wëndeelu takk suru dana bari anwaahul baayihina xeeti way jaay ñi al mutajawwilina ñi di way wëndeelu minhum am na ci ñoom man koo xam ne yabiixu day jaay almawaadda matière ya alxisaiyata yi alimentaire alimentaire mooy yi jëm giñ yi jëm gimiñ maa yi nga xam ne ñu koy lekk daal mooy almawaaddu alxisaiya wa axaroona ñeneen yebixoon danañu jaay al aqmishata ay tiisi wal malboosaati ak yére yi ñu sol waxis mun beneen xaaj yebixoon dana jaay al maxruqaati yee ñuy taale buñ soxlaa taal almaxluxaat yu ñu lakk lay firi waaye mooy yi ñu yittewoo ci boo dee taal man caa taal waxi sumul akub xaaj aaxaru baneen yabi boobu dana jaay adawaati zinati effet toilette wa aaxaroon ak ñeneen yabi xoon danañu jaay almurattibaat boisson fraîche yi minhum bokk na ci ñoom man koo xam ne yaaridu dana wane xadamaat yi ay service am ay liggéeyam ñuy wëreelu ci marchand ambulant yi dañoo wute am na ci ñoo xam ne lu jëm gimiñ lu ñu lekk la ñuy jaay am ci ñoo xam ne lu ñuy sol ki tiise yeeg ñu ñëw ba noppi di ko sol la ñuy jaay am ci ñoo xam ne yi ngay soxla boo ta booy taal di ko jënd di ko taale la ñuy jaay am ci ñoo xam ne effet toilette yi la ñuy jaay am ci ñoo xam ne boisson fraîche yi moom la ñuy jaay am ci ñoo xam ne nag liggéey ba ñu mën la ñuy wane bëgg ne mën naa liggéey sàngam ku leen soxla jël leen ñu liggéeyal la bàyyihu suxufi aji jaay journal yi yaxmil dana yore xadadan ab lim mina suxufi ci ay journal al yawmiyati yi ko jug bis bu ne ñu leen di wax quotidien quotidien mooy journal yi nga xam ne bis bu ne ñu génn bu fekkee du bisu feet mel ne soleil ci fii ci Sénégal ni muy def rek bis bu ne lay génn bu fekkee amul feet mbaa lu ko gàllankoor wal majallaati ak xeeti réew yi réew yi nag day ëpp journal ñu xawal ko wutal feggu xawatal tuuti ba noppi nag du tee ni journal di waxe la ëpp waxe waaye moom day xawagul ab téere am na ci yoo xam ne par ay bis la ñuy génn am na ci yoo xam ne par weer am na ci yoo xam ne sax par ñetti weer ñu teg ko jëm na mihfazatin ci biir ab cartable min waraqin muqawwan bu bàyyi ko ci carton al waraq day firi kayit mu al muqawwa di firi lu ñu dëgëral ba boole ñaari baat yi nag muy min waraqin muqawwan muy firi carton yaqifu dana taxaw fi saaxaati ci place yi alhamati yi publique xinda maxataati sayaaraati rukkaabi fa gaaraasi otay client yi yadhkuru dana tudd asmaa as-suhufi turi journal yi allati yi nga xam ne yaxmiluhaa dina leen yore yadhkuru dana di tudd sax xulaasata ahamil ahdaasi sommeeru li ëpp importance ci xew-xew yi wala am bàyyi ak xibaar yi bokk na ci ñi jaay wëreelu ñi jaay journal ay gis ñu yor ay journal yoo xam ne dañuy génn bis bu ne mbaa ay réew yi dañ koy def ci lu mel ne cartable boo xam ne ci carton rek lañ ko liggéeyee dañuy dem nag ci place yi nga xam ne ñëpp fay tase mel ne garage yi nga xam ne mooy garage su oto yi clients yi di fa duggee fu mel noonu daañu fay jaay buñ koy jaay dañuy tudd turi journal yi léeg-léeg sax ñu tudd titre yi titre yi mooy boo dee xool journal bi xibaar sàngam da koy wutal ab adresse ne nangam nangam ko defee nag léeg-léeg ñu tudd titre yi journal yi maanaam di wax benn benn lu nekk ci journal yi xam ne boo soxlaa xam lu aju ci googu wàll nga jënd journal boobu bàyyixul kaaki aji jaay bonbon wala gâteau yaxmilu day yore tabaxan ab palaat ala rasihi ci kaw boppam yabaxu dana teg àll yi ci kawam shatta anwaaxil kaaki bay wutee façon yi bonbon wala gâteau tata saaxadu dana monte raixatu simsimi xetuk simsim simsim day lu am diw ñu koy faral ñoom di defare seen gâteau yi wala seen beñe yi ak yu demee noonu yu naaj yi dana woote dana jéptaane bi en la sawti yi ci gën jaa kawey kàddoom di wax naa kànk suxun maanaam gato bu tàng xam nañ ko door a liggéey rek léegi yàq fi dana taxaw amaamal madaris yi ci kanam école yi yata naqal dana déplacé fii chewaari il madinati ci rii dëkk bi sabaxan ci suba masaan ci ngoon yet xubu dana bënn alkaankata bonbon ba wala gato ba yabaxu dana teg fii xaa ca moom ak santara ñu wax santar muy tiim asumaaxi ànd ak simak maa ni ngay def fii rek boo gisee léeg-léeg kuy jaay akara wala yooyu nga xam ne day bënn kii bi def ci am ñeex ñoom tamit daan def buñ day jaay lu mel noonu daa am lu ñuy wax santar koy wax tiim ak lu ñuy wax sumaaq ñu koy wax simak dañuy bënn kii bi sol ko ci biir daa wax ne kiy jaay xeeti gato yeeg bonbon yi moom ci palaat la koy teg yam dana di yore nag ay xeeti façon yu bari ci bonbon da nga gis muy xeeñ xeet gu neex xeetu simsim day jëptaane ci kaw nag di wane ne beñe bu yees bu tàng jër wala gato bu yees bu tàng jër la yoro di taxaw ci bëri di école yi daara yi ndax gone yi jënd suba ngoon rek da nga gis ñi dema ko dikk ci rii yi dëkk bi buñ dee jaay mel noonu daañu koy xar mbaa ñu bënn ko def ci la koy neexal baaixul xudari aji jaay lujum ya wal fawaak yi ak furu ya yu sayiru dana doxal amaamahoo ci kanamam ximaaran mbaam yabax dana teg alayhi ci kaw mbaam mi ak yaasan ay saaku xadidatan yu bari wa sanadiqa ak i kees xashabiyatan yu bàyyi ko ci dénk yam la uhaay di leen di feesal bil faakihati ci furu wi wal xudari ak lujum yu naat yi dana jéptaane xalaa bidaaxatihi ca marchandise am ma yadkuru dana tudd asmaaha ay turam moom marchandise ma yam daxu dana tagg bidaaxatahoo marchandise am ma daakiran mbir mu muy aju tudd amaakina intaajiha bérébi seenug ñoral wala bérébi seenug defar ñi ki mën a daamuur yi yaamuus min mali in tilias yaa burtuqaal tashtari dana jënd min fu ci moom an nisaaw jigéen ña am na ñuy jaay lujum bu dee ci ñoom kooku day war mbaam jël nag saaku def lujum jeeg furu yi sëf ko ci kaw yenn yi mu def ko ci kees def ba mu fees ak furu weeg lujum di wax ca kaw nag di wax di jaay ca turu la muy jaay ngir sax ñu xam ne li muy jaay baax na dana di tuddaale fa mu ñore ba fañ ko defare bu ne daamuri yaa muus dana fekk ñooña xam loolu bu ne min maali intilias yaa burtuqaal dañ xam loolu biñ ko waxee ne li ñuy jaay lu baax la ko defee jigéen ñi tàmbalee jënd ashonru adifu danaa ñëwante xalal baayixiina ci way jaay ña almutajawwiliina ña di way wandeelu ashtari danaa jënd minhum ci ñoom